بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين laqin lisaani waxlulan minhu loqad wajalhu zakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal comme ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bés bu jot tolloon ak yéen ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde Munawwiru Sudur ci suñu bind bu mujj ñu nekkoon ci bind bi nga xam ne ci la sëriñ bi radiallahu anhu doon ñu misaalal àdduna ba doon ko nuróole ak benn màggetum jigéen joo xam ne dafa làmboo ay yére yu seer a seer a seer yu rafet a rafet ci kaw waaye ca biir lépp lépp bu futtikoo rek yow mi nga xam ne yaa ko doon xemmem dootoo amu xemmem ci moom sëriñ bi noonu lañu misaale misaale àdduna kon ñàkk xemmeem gi nga xam ne moom ngay ñàkk xemmeem màgget moomee ngir at ya nga xam ne moom la am ñena àdduna it noonu rek nga cay waroo waru ga ngay am ci soxna soosu noonu nga koy amee ci àdduna sëriñ bi nag radiallahu anhu di ñu wax ne saa boo xamee nag aji xellu ji moom gëstu na ba xam loolu moom day jël àdduna moom daal di koy teg fële comme na nga xam ne noonu lay tege màgget moomu fële noonu lay tege àdduna fële mu misaalaan ñu ko itam ne dafa mel ni géntug aji nelaw rek maanaam kii nelaw li nga xam ne moom lay gént ci nelaw yi day jàpp ne lu ama am la waaye fekk na bu yeewoo day mel ni loolee mu doon gént lépp du ca gis dara mu sotti kon it àdduna sëriñ bi radiyallahu anhu misaale nañu ko noonu kon suñu bind bi weesu foofu la taxawoon suñu bindub tey ñuy continuer rek ci téere bi ba tey sëriñ bi di wax di jëmale ci boppam mu ne aqbalati dunya àdduna jublu na ilayya jëm si ci man xablu lu jiitu woon wa bi'atuha ma jaay ko wazaala mu mujj anni ci man alkablu di ab jëni wa baadaha ca ginnaaw loola adbarat du mooyu na anni walif ma walam amil waaye jénguma laha ñeel ko moom àdduna li kaw ni ha ngir nekkam daara zulam kërug lëndëm wa baadahu ginnaaw lool nag aqbalat jubluwaat na lii ñeel ma wa inni naka man aqbaltu jublu naa lillahi ñeel yàlla wa ab xaate mu desal man ni sama xeewal sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi wax ne àdduna daf koo jëkka jublu si sëriñ bi nee na bi ko àdduna jublu see moom dafa jaay àdduna jënde ko lan jënde ko ak topp yàlla waaye jënde ko bëgg ngërëmal suñu boroom waaye jënde ko xool li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala di digle mu nekk ca waaye xool li suñu borom di moytandikuloo mu moytandiku ko waaye jënde ko di liggéeyal rasulillahi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi nee na bi ma ko jaayee noonu àdduna dëdduma wan ma ginnaaw dem ma bàyyi ko waaye mu dem ba yàgg mu mel ni daf ma dëgmal siwaat moom àdduna waaye bi ma dëgmal siwaatee teewut it na nga xam ne noonu laa defan ca bu njëkk rek noonu laa daal di defaat dama jubluwaat sama borom mi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooma may ay xéewal te it lépp loo xam ne moom laa am suñu borom subhanahu wa taala moom moo ma ko may nga gis ne kon foofu sëriñ bi radiyallahu anhu ci ay jamono nekkoon na ci jamono yoo xam ne nit ñi daan nañ ko dëgmal si bu baax a baax a baax këram daan fees dell nga xam ne jamono jooja mën nañoo wax ne àdduna dëgmal si woon na ko bu baax a baax a baax a baax waaye it moom taxutoon mu bàyyi xel li nga xam ne mooy àdduna waaye gisutoon amutoon benn yëg-yëg ci li nga xam ne moom la nit ñi ñëw di ko ko andil yooyu yëpp bàyyi ko woon xel waaye suñu borom rek la joxoon li nga xam ne mooy mooy jëmmam moom la joxoon léppam mu mel ni bi nga xamee ne jóge na foofu itam ci jamono jooju demaat na ba wéet foo xam ne moom dong nga fa ne mu mel ni àdduna daf ko wonaat ginnaaw muy dund ay tiis di dund ay mitit yu mittee miti ci biir tukkib géej gi mu mel ni àdduna daf ko wonoon ginnaaw foofu sëriñ bi radiyallahu anhu continuer ca la nga xam ne moom la nekkoon ca ba nga xam ne moom la ko àdduna jublu woon te mu bàyyi woon ko xel bàyyi ko ginnaaw mu continuer ca la nga xam ne moom la nekkan mooy lan mooy di topp suñu borom bi subhanahu wa taala waaye di jëfe ay ndigalam di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne jugi na jóge na ci tukki bi del siwaat day mel ni àdduna daf koo dëgmal siwaat ndax nit ñëpp tàmbali di ñëwaat këram nga xam ne këram da daan fees dell dell dell mu mel ne kon booba àdduna daf koo jublu siwaat waaye yonent bi sans sëriñ bi radiyallahu anhu nee naa na nga xam ne noonu laa defoon ba mu ma jëkkee dëgmal si rek noonu laa defaat dama jublu sama borom mi nga xam ne moom mooy ki nga xam ne moo ma defal ay xéewal waaye dama jublu sama borom mi nga xam ne lépp luy fajuk aaja moom rek la ñu ci yaakaar waaye dama jublu sama borom mi nga xam ne moo bind nit ak jinne te digal leen ñu jaamu ko te it ñu war koo jaamu ci ak sellal kon loolu lu wér a wér a wér la lu ama am solo la loo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu leeral nañu ko foofu ci dëgmal si gi nga xam ne moom la ko àdduna dëgmal si woon mu bàyyi ko waaye bi nga xamee ne àdduna woon na koy ginnaaw itam taxut mu wëlbatikuwaat di ko wuti waaye bi àdduna demee ba jublu si waat ko itam taxut mu won ko ab xarkanam ngir jublu ko moo tax mu sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne fa kulluma lépp la nga xam ne akunu dana nekk zanti faayin di boroomu jëriñ bihii ci moom bihii ci moom mina dunya tukkee ci àdduna la danti faayi fas sama jëriñu fa innahu nako fa innahu naka moom yakunu dana nekk zaadan ab yóbbal lil jinaani ñeel ajjana baadal bu yooxe ginnaaw jaay ma wal jihaadi ak jihaad ja ci yoonu yàlla zamtinaanin may boroomi xéewal sëriñ bi nee na àdduna lépp loo xam ne rek moo fi nekk ci ay njariñ loo xam ne danañ ko wut wala ñu koy dimbandikoo loola day leen rek lañ cay soxla mooy la nga xam ne ab yóbbal lay nekk jëmeñu fa nga xam ne mooy àjjana kon àdduna lu dul lu ñu yóbbuloo ci kanam suñu borom lu ñu yóbbuloo ëllëg yowmal xiyaam sëriñ bi nee na loolu lu dul loola soxla ñu ko fi kon lépp la nga xam ne moom la sëriñ bi daan jëf ci àdduna bu nuroo loo xam ne mbirum àdduna la sax bum tax ñu jàpp ne mbirum àdduna la waaye sëriñ bi moom jëfam yépp suñu borom a taxoon mu ko doon jëf jëfam yépp daf ko doon def mu di ab yóbbal boo xam ne daf koy jiital kon loolu itam ñu war cee jàngate ne nit ki lépp loo xam ne moom lay jëf ci àdduna da ko war a jëf rek te jëmmi yàlla rek tax waaye bu koy jëf na ko jëf waaye ngir sàkku ci li nga xam ne mooy ngërëmul suñu borom bi subhanahu wa taala waaye ngir jëfe ko ngir ndigalul suñu borom bi subhanahu wa taala li nga xam ne moom la digle mu ne ahmadu danaa sant rabbiya sama borom ala xayril wara jaare ko ci ngën gi mbindeef mu yonente bi alayhi salaatu wasalaam kama xaada ni ka nga xam ne noonu la wommate moom yonente bi saa sallam bihi ci moom ilayya jëm ci man aswara la nga xam ne mooy alquranul karim ahmaduhu danaa ko sant alantihaa yi ci sama jeexal sayri sama dox loxoo ñeel ko maal maax yi ànd ak aji far bakkaar aji far kéefar wa yëpp xii tamuy desal mayri sama xont nee na maa ngi sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala wommatal na ma li nga xam ne mooy alquran wommatal na ma li nga xam ne mooy mbootum alquran te jaare ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon nee na maa ngi sant sama borom bu baax a baax a baax ci loolu nga xam ne moom la ma defal muy wommatal ma li nga xam ne mooy alquran waaye xamal ma li nga xam ne mooy alquran waaye xamal ma li nga xam ne mooy alquran waaye wommatal ma li nga xam ne mooy alquran waaye jaare ko ci kan jaare ko ci ngën gi mu def muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye maa ngi koy sant moom sama borom ci jeexal gi nga xam ne moom la jeexal dox bi nga xam ne moom laa doon dox te mooy tukki bi nga xam ne moom laa doon tukki ngir jaamu ji sama borom subhanahu wa taala ak wéetal ko ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danay loolu maa ngi ko ci sant moom sama borom bu baax a baax a baax a baax ak jaare gi nga xam ne moom la ko jaarale ci sama soppe ba muy yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi ne nabbahtukum yee naa leen maan boole seen ala kaddin ci ab coono badaa ba feeñ na lii ñeel ma xabla an ara la njëkk may gis ridan ngërëm mu abada ji aji sax sëriñ bi nee na maa ngi leen di yee ci coono boo xam ne daj naa ko la njëkk may am ngërëm maanaam la njëkk may am li nga xam ne moom laa doon wuti muy liggéey bi nga xam ne moom laa doon liggéey la njëkk may am li nga xam ne mooy li nga xam ne moo ci bàyyikoo ci ay xéewal sëriñ bi nee na yee naa leen ci coono boo xam ne daj naa ko ci tukki boobu daj naa ko ci liggéey boobu baax a baax a baax a baax kon liggéey boobu doonutoon liggéey bi yomb boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu daf ko doon def rek noonu waaye jànkoonte na ci ak coono yu mitee mitee miti kon it noonu mooy tax képp koo xam ne da nga nekk ci àdduna bëgg a topp sa borom bi subhanahu wa taala itam mënut a ñàkk nga jànkonte ak ay coono ngir li nga xam ne moom mooy gàllankoor diine wala li nga xam ne moo mën a gàllankoor doomu aadama bi ngir mu mën a topp suñu borom bi subhanahu wa taala mbir yu bare bare bare la yoo xam ne nit ki war na ko bàyyi xel ba du ca tàbbi moo tax sëriñ bi ne fa jaahidu na ngeen jihaad an nufoosa seen bakkan ya laa tattabion bu leen topp ahwaaha ay bànneexam balli fi nekk ittabion na ngeen topp arriba muy gërëmal suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi ne na na ngeen jihaat ak seen bakkan yi te bu leen topp bànneex yi nga xam ne moom la leen seen bakkan yi di digal seen bakkan yi bu ñu leen di womma di di leen jëmale ci ay bànneex wala ñu leen di jëmale ci ak moy yàlla ne na loolu lépp bu leen ko gestu waaye na ngeen def ak jaamu yàlla ak topp suñu borom subhanahu wa taala na ngeen ko def muy ni nga xam ne ci ngeen di sàkkoo ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala waaye bu leen topp mukk seen bakkan yi nga xam ne dañ leen di digal aw ñaawteef te ngeen koy def di ca mooy suñu borom subhanahu wa taala kon na ngeen topp bakkan yi nga xam ne wala melokaan yi nga xam ne moom moo leen di wommat di leen jëmale ci ndigal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle ngeen koy jëfee ngir am ci ngërëmal suñu borom waaye li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala tere ngeen koy moytandiku ngir it mën a am li nga xam ne mooy ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala bakkan nag mbokk yi doon ñetti xeet wala am ñetti melo ndax am na bakkan boo xam ne melow yedd la amee wala mën nañoo wax ne bakkan boo xam ne bakkan la boo xam ne day yedd boroom amit bakkan boo xam ne bakkan la boo xam ne day digal boroom aw ñaawteef wala day yëpp boroom ci ay jikko yoo xam ne da koy indil ay ñaawteef waaye am bakkan boo xam ne bakkan bu dal la bu yore ay jikko yoo xam ne yu dala dal la te it mooy ñetti bakkan yooyu nga xam ne suñu boroom subhanahu wa taala tudd na leen ci alquranul karim bi ci bi ñu ci jëkkaleeral muy bakkan bi nga xam ne day digal boroom aw ñaawteef mooy bakkan ban mooy bakkan bi nga xam ne mooy jëñ boroom di ko jëmale ci muy def ay moy ay moy yàlla moo xam ci anam gu mu ko man di defee waaye mooy bakkan bi nga xam ne mooy jëñ boroomam muy jëm ci aw ñaawteef di def naka sudul noona waaye di mooy suñu borom subhanahu wa taala li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye mu koy def waaye la suñu borom subhanahu wa taala digle mu sori ko lool du ca jëfe dara dara dara bakkan boobu itam mooy bakkan bi nga xam ne moom mooy rafetalal doomu aadama bi ay bànneex lépp loo xam ne bànneex la doonte ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo aaye sax bakkan boobu moom bakkan bi nga xam ne moo yor melo woowu moom day day day day lay rafetalal ñaawteef yooyu mu mel ni dafa doon sax loo xam ne dafa dagan ba boo ko jëfee doo ci am benn jafe-jafe bakkan boobu itam mooy bakkan bi nga xam ne moom mooy wommat nit ki di ko jëmale ci ak alkande mooy wommat nit ki di ko jëmale ci alkande te it mooy bakkan bi nga xam ne mën naa dem ba tàbbal nit ki fa nga xam ne mooy sawara wana yaasu billah moo tax suñu borom bi subhanahu wa taala di wax ci alquran ne inna nafsa la ammaratun bi suui illa man rahima rabbi nee na bakkan day am na ci bakkan yi bakkan boo xam ne jikko jam amee de mooy digle aw ñaawteef digle aw ñaawteef nee na bakkan boobu nag kenn mënu cee mucc kurut koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo yërëm waaye kurut koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo daf koo daf ko daf koo yërëm waaye daf koo bëgg a xettali kooku rek moo ci mën a mucc kon bakkan boobu saa boo xamee ne dafa ànd ak nit ki mën na koo yóbbu ci li nga xam ne mooy di ak mooy waaye mën na koo yóbbu ci li nga xam ne moo di ñàkk a topp suñu borom subhanahu wa taala waaye mën na koo yóbbu ci ay def def ay ñaawteef yoo xam ne bu koy def du yëgal sax ba boppam ne mi ngi def aw ñaawteef ñaareel ba mooy bakkan bi nga xam ne mooy bakkan bi nga xam ne mooy yedd boroom bakkan bi nga xam ne mooy yedd boroom mooy bakkan bi nga xam ne du sax ci benn wenn melo mooy bakkan bi nga xam ne yenn saa yi day bég yenn saay mu am njàqare yenn saay muy topp suñu borom subhanahu wa taala yenn saay mu koy moy yenn saay muy def ay bàkkaar bakkan boobu mooy bakkan bi nga xam ne mooy annafsul lawaama bakkan boobu nag bakkan la boo xam ne su ko nit ki amee saa boo xamee ne wàcc na aw yoon loolee day jàjji nit ki mu yeddaat boppam xam ne li ko suñu boroom andee ci àdduna loolu taxut su ko defee mu teguwaat ci yoon wi loolu mooy bakkan bi nga xam ne mooy annafsu allawaama di bakkan boo xam ne nag saa boo xamee ne nit ki dem na ba amee ko nga xam ne bu defee aw ñaawteef day réccu li nga xam ne lool noonu la ko defee waaye day gaawtuwaat di jéem koo dabaatal ci jëf ju rafet jéem koo dabaatal ci li nga xam ne mooy lu neex suñu borom subhanahu wa taala waaye jiima yokkaat li nga xam ne mooy ay jaamu yàllaam te bañ a gàttañ lu ci li nga xam ne mooy topp suñu borom subhanahu wa taala saa boo xamee ne nit ki dem na ba yegg foofu ci bakkanam loolu mën na koo dimbali mu dem ba egg ca bakkan ba nga xam ne nag lépp lu di ak topp yàlla rek ca lay continuer di ko def waaye lépp lu di ak mooy yàlla daf koy moytandiku moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ci alquran ne laa uqsimu bi yawmil qiyamati wala uqsimu bi nafsil lawaama kon an nafsul lawaama mooy bakkan boobu nga xam ne du sax ci benn melo waaye léeg-léeg mu mel ni suñu borom bi subhanahu wa taala bëgg léeg-léeg mu jàdd aw yoon waaye nag su jàddee aw yoon day yedd boppam ba tegaat boppam ci li nga xam ne moo di aw yoon ñetteelu bakkan bi mooy bakkan bi nga xam ne mooy an nafsul mutma inna di bakkan boo xam ne bakkan bu teeyatee la wala bakkan bi nga xam ne dafa amee aw melo woo xam ne melo wu teeyatee la te mooy melowan mooy melo bakkan bi nga xam ne day soññ boroom di ko puus di ko jëmale ci bëgg suñu boroom subhanahu wa taala ak di gëstu li nga xam ne mooy nu muy gën a dëgërale ngëm gi nga xam ne moom la gëm suñu boroom subhanahu wa taala ak ni nga xam ne noonu lay wakkilloo ci suñu boroom subhanahu wa taala ak li muy jële léppam delloo ko ci yàlla di fàttali ko suñu boroom subhanahu wa taala fu mu toll di ko tudd di bàyyi xel li nga xam ne moom la ko defal ci ay xéewal ba du may bakkanam mukk muy jalgati wala muy muy muy wàcc li nga xam ne moo di aw aw yoon kon bakkan boobu mooy bakkan bi nga xam ne mooy an nafsul mutmainna suñu boroom subhanahu wa taala di ko wax ci alquran ne yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati kon bakkan boobu mooy li nga xam ne mooy an nafsul mutma inna nga xam ne mooy bakkan bi nga xam ne moom day xiir doomu aadama bi ci topp suñu borom subhanahu wa taala day xiir doomu aadama bi ci bëgg suñu borom subhanahu wa taala waaye day xiir doomu aadama bi ci di bàyyi xel yàlla di ko tudd fu mu toll te tudd yàlla nag bokk na ci li nga xam ne mooy may nit ki teyu bakkan waaye bokk na ci li nga xam ne mën naa may nit ki bakkan bu mel noonu nga xam ne day sell du gis lu dul suñu borom subhanahu wa taala ndax suñu borom moo wax ci alquran ne ala bi zikrillahi tatma'innul xulub kon loolu lu ama am solo la lu ñu war a bàyyi xel la kon ñetti bakkan yooyu ñu man koo ñu man cee jàngate lu bare bare bari nga xam ne ku ca am boo xam ne an nafsul amara bi suu'i la mooy bakkan buy digle aw ñaawteef fexeyal di ko tàggat ndànk-ndànk di ca génn ba mu man la andi ci an nafsul lawaama su la andee ci nafsul lawaama soo continuer moom tamit di tàggat bakkan ba melo woowu ndànk-ndànk di ko tàggat ndànk-ndànk dina dem ba nga egg ci li nga xam ne mooy melo wi nga xam ne moo ànd ak an nafsul mutmainna di melo woo xam ne daa sax ci li nga xam ne moom la suñu borom digle di bàyyi xel li nga xam ne moom la suñu borom aaye moom mooy tandi ko di ca tàbbi kon ñu ngi tuub bu baax tey jégglu di wàcc foofu kàddu gi di wax ne in uridu illa al islaah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu